فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مكو غور فاس دي سيني نيو باخ باخ باخ ما نيو تي غورم اوجو بي مجو مو خمان دونغا جاي لا نيو مو واخ اي واخ يو خامني واخ دغ يالا اي واخ يو ريلو دليل ندخ ديبا سي خام خام دا فاي سخلا بروف نيغا سيني بروم سبحانه وتعالى اتي عربي رك لاكو soxla nañ benn aaya nga indi ko boo xam ne yàlla moo ni aj ci arab yi la ko warlul comme yenn da ngeen ni seen delluwaay ci alquranu karim la soxlawu ni benn explication boo xam ne sa xel la jóge li ñu soxla mooy nga indi ñu benn texte boo xam ne yàlla moo ni aj ci arab yi la ko warlul soxla nañ loolu incha allah nga wax ay wax yoo xam ne wax dëgg yàlla lu doy war la mooy lii lii day ne rek mooy boo ñàkkee tënku ci njàngale yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay làmbaatu dem rek da ngay mbëkki dem rek doo xam fete ci sànq sa xel ngay demee def ko muy sa gid te dina sa bu doon xel ak lay tënku kon musiba am kon ku nekk doyloo sa xel nee nga dégg naan tamit yaar yaa ni julli euh, taxut nit xaw ma dugg safara ñàkk julli xaw ma taxut nit dugg safara ak yi demee ni ki noonu ba pare nga ni nga gëm am ay aaya alquran yoo xam ne saraxatan da cee wax léegi dañuy ñëw nga leeral ñu fan la yàlla waxee ni nit mën naa ñàkk julli dugg aljanna incha allah ak ay yàlla wax ni ña ña nga xam ne ñàkk julli moo leen dugal aljanna ñooñu ñan ñan nit la ñàkk julli moo dugal safara kon ñooñu ñan ñan nit la incha allah kon booy débat ci xam-xam doo wax di sànni da ngay indi ay argument te boo nee benn delluwaay la ñu amee alxuraanu karim sa delluwaay fa nga ko jëlee incha allah soxla nañ loola. boo nee aj pour arabe yi la woon doo génnee benn aay bu la ko sa alxuraanu karim yéen da ngeen di mbubboo alxuraan la roy la topp te da ngeen di wax loo xam ne dara doo ko génne ci alxuraanu karim lancé naa la defi nga génnee benn aay bi yàlla wax ni aj pour arabe yi la doo ko génnee. يلا هوني ولله على الناس حج البيت ولله على الناس ينيو الناس عربي يلا ورلو النشي نيني ينيو الله يلا وخ موي بام نيو يرتي وما ارسلناك الا كافه للناس دما لا يدنك شي نيب نيغي نخ indil firnde ni annaasu mooy arab yi bismillah kon ndax annaasu mooy arab yi bu dee annaasu mooy arab yi rek kon wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi kon da ngaa ni yàlla ci arab yi da nga la yónni yónni yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon li ngay wax du diine xel ngay waxee da ngay da ngay affiché alxuraanu karim mais la ngay wax dara néew ci alxuraanu karim kon yàlla bu ne walillahi ala nnaasi hajjul bayt yàlla moo warlul ci doomu aadama yi ci nit ñi kon bépp kuy doomu aadama rek yàlla warlu na sa kaw aj aji néegu yàlla bi mu ne man euh, man istata ilay sabil koo xam ne nag man na ko mooy am na moyen bi kon képp koo xam ne nit nga te am moyen rek suñu boroom moo war loolu ci yow aj waaw mu ne wa man kafara képp ko ku weddi mooy koo xam ne mën na pare demul aji ji fa inna allah ganiyyun anil alamin kenn képp koo xam ni nit nga ndax mission yonte xam nit yëpp la ñu gëmul dañoo lànk dañoo lànk si lañ bokk kon képp koy nit yàlla fa waroo ci yow aj boo boo amee moyen gi boo amee moyen gi rek léegi tegu na sa kaw bu tegoo sa kaw na suñu borom subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne man nga ko tegu na sa kaw man nga ko defe ko mooy da ngaa weddi fa man kafara la yàlla wax wa man kafara fa inna allah ganiyyun anil alamin yàlla ko doyul la nga xam ne kon sa am am boobu nga am ñàkk dem yàlla soxla ci juróomi dërëm du caagee ne boo demee da ngay yokk yàlla kon yàlla ki nga xam ne mën na ko te demul ab ka kaafir la ko yàlla tuddee te yàlla walillahi ala naasi la wax yàlla warlul na ci nit ñi yàlla waxul walillahi alal arab déedéet yàlla warlul na ci nit ñi la wax kon bismillah ñëwal nga leer ndax annaas boobu mooy tekki arab bu dee annaas mooy tekki arab indi ñu dalilam ci alxuraanu koy fan la lu war a annaas yi boobu tekki arab incha allah bi suñu borom laxatee ci aj dal ni walillahi ala nnaasi hajjul bayt man istata ilayhi sabil man istata koo xam ne man na ko mooy am na moye gi waaye nag ku am moye gi te weddi ko man kafara la yàlla wax ki nga xam ne man na ko te am te am moye gi lan la yàlla wax ci moom alhajju ashurul maalumat ajja ay weer yu ñu xam la waaye fa man farada fihinna alhajja képp koo xam ne faratuk aj warlu na ci moom mooy léegi kooku léegi am na moyen ji léegi farata gi warlu na ci moom fa man farada fihinna al hajja képp koo xam ne faratay aj kon aj ak farata la fa man farada fihinna al hajja yàlla mu ne képp koo xam ne léegi am na moyen gi léegi kon aj léegi farataalu na ca moom yàlla soo koy wax ni kooku bu dee bu mu def nangam fala rafasaka wala fusuqa wala jidaala fil hajj allahu akbar kon aj farata gu wër la léegi ndax ndax farata daa am ci l'islam goo xam ni yàlla da koo farataal pour arab yi ñu lu arab bokku ci farata gi léegi bismillah xaw ma ndongo njaay la xaw in soxla naa dalil sa alxuraanu karim soxlawu ma lenn sa xel nag alxuraan laa soxla suñu borom soxla la waxaat ni wa asin fi nnaasi bil wa asin joxel ndigal la wax wa asin fi nnaasi bil hajji ndigal doomu aadama yëpp pour ñu aji من يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج أميق ليشهدوا منافع لهم يلا منه joxel ndigal wooteel doomu aadama yi pour ñëw aj ci kon yàlla moo joxe ndigal pour ñu aji kon aj bu du farata lu mu doon yàlla bu joxee ndigal ndigalu suñu moom du farata mu ne nit ñi dinañ ñëw dox dañ ñëw war bépp façon waruwaay jóge ay gox gox yi fasanti ko yu sore sore sore nga gis nit ñoo xam ni seen digganteeg Makka ñaata kilomètre la ñu jóge ay dëkk-dëkk ñii ñi ngi biir Makka jaroon ñuy def dañuy dox dem ñii yeen dëkk lay jël avion ñii yenn dëkk day jël oto ça dépend kon suñu borom moo fa fa asin fi naas joxel ndigal kon yàlla bu joxee ndigal ndigal loolu farata génneel ma fan la ndigalu yàlla ñàkk nekk farata insha allah ak fan la yàlla waxee ndigal lii pour arabi kese la soxla naa dalil bu leen nañ ci alxuraanu karim paase xel soxla naa tamit nga indil ma benn dalil boo xam ne suñu borom moo ko wax ci alxuraanu karim ni nit ki mën naa ñàkk julli te texee dugg aljanna بسم الله اني المكو بن دليل كون واخ دبا نيكول واخ ساني واخ ني لي مانا نيك لي مانا نيك كون بو ني مان الخان كيسا لا دويلو موم لا تك سما لوخو لب لاي واخ دانكوي ارغيمانتي سي القران الكريم اندي دليلم ناخ يو سا خال كين ديك سو سولون كو يال توفلو سا خالات كون داغي ارغيمانتي لب لو واخ القران الكريم سيو بروس ما تلا فني فخلف من بعدهم خلف اداء الصلاه واتبعوا الصهوات fasawfa yalqawna hayya yàlla mu ne ñoom de dañoo bàyyi seen ginnaaw ay nit ñoo xam ni luy seen métier mooy adaa u sala dañoo sànq julli wattaba u ñu topp seen i bakkan kon fasawfa yalqawna hayya xel set nañ dañ rek safar bu ñuy wax xëy dañ dugg safara de xel set nañ dañ dugg kon yàlla nee na képp koo xam ni sànq nga julli xel set nañ da nga dugg safara يلا بقى فسوف يلقون غيا لا يلا بقى دغ دغ سفر يو نك انما بن ايه بو خامني سيو بروم مو ني كيب كوسان كوسان كو جولي منا دوغال جنة بسم الله تلخان كريم يلا وخاني من من المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلين يلا كاتشور ييغا خامي داو جولي صاح مجرم لين تودي غاي باي جولي مجرم كريمينال اي كاي اي كاتشور yàlla mu ne ëllëg bu ñu leen laajee maa salakakum fi saqara lam moo leen dugal safara bi ñu saqara xaaloo lam nakum min al musallin ñun daawuñu julli loolu njëkk wax daawuñu julli kon yàlla wax na ci alxuraanu karim ñàkk julli day dugal ci safara léegi génn na fa la yàlla waxee ñàkk julli dina dugal ci aljana incha allah rek laa soxla il na la aaya boo xam ni saraxatan bu leer nañu ne ñàkk julli day dugal ni safara léegi indi ñu aaya boo xam ne saraxatan day wane ne ñàkk julli teewul ni dugal aljana bismillah incha allah suñu borom waxoon ni fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun yàlla waxuma la ñu ñàkk julli de waaye ñu julli ko sàgganee sax yàlla ma toskara ñeen la leen safara ñeen la ëllëg yawmal xiyaam kon wax dëgg yàlla sëñ bi yow da ngeen da ngeen affiché alquranu karim pare fas fas leneen wax leneen loo xam ni newu ca ok salaamaaleykum wa rahmatullah Abdoulaye Diop maa ngi lay ziar bu baax euh, dama sori woon sama connexion ndax dama jàppoon dama taar rek xasanteel audio bu mujj bi dinaa déglu yeneen yi euh, nga tudd ci sama tur pour ma ñëw ci euh, texte alxuraan ci laay ñëw maanaam loolu nga aaye boobu nga wax tam nekk suratu ali imran walillahi ala nnaasi walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila foofu la yem wa man kafara googu bokkul ci duggul ci aj gi wa man kafara bu ko yàlla waxee li ci yàlla jublu mooy ku weddi tawxiid ku weddi yàlla ci boppam waaw loolu la mais gisoo ponk lislaam yi fu la yàlla di waxee julli indi baatu wa man kafara voilà ne la asaka indi baatu wa man kafara voilà waman kafara foo ko gisee rek yàlla weddi yàlla la yàlla di wax waman kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin maanaam yàlla yàlla jii fi ne képp ku ko weddi weddi ko ci tawhid weddi ne mom kenn la yàlla wëlif na manam doylu la manam yàlla soxlawu la soxlawul àdduna bi li mu bind soxlawu ko donte dañ ko daf ñoo bind pour ñu jaamu ko nag bu ñu ko jaamuwul it bu ñu ko gëmul it yàlla soxlawu yaa ayyuha nnaas antumul fuqaraa ila wallahu huwa alganiyul xamid kon loolu li ko yàlla di wax ci alxuraan bari na musu leen gis yàlla jox ñu koor ne ku ko weddi waaw maanaam ponk yooyu ñu def ci lislaam cinq piliers yooyu gisoo ci bu ci yàlla di teg ne ku ko weddi comme ni mu waxee wa waman kafara googu bokkul bokkul de bokkul ak aj gi de alxuraan dafay wax amul ay point amul fii lay yem amul kii voilà dëgg la ci benn aaya la nek nag mais boo xoolee sax aaya bi dañ cee def mawxif dañ cee def ca kaw manistata istata ilayhi sabila am na luñ ca def ne la taxawaay la bo moom ak lii ñëw bokkul waaw kay ràññeel boobu nag nit ki foog mu def ko aj bi nag comprendre nañ leen de comprendre nañ leen bu baax a baax ci aj bi li waral ngeen aj arab kese la ndax da ngeen ko mën a layal ci alxuraanu karim julli moom mu ngeen a seen tappale tappale tappale créé ay ay yoo xam yéen a ko monté waaye aj lott ngeen ca loola moo tax ngeen boo ko ne arab yi la pour arab yi kese la <laughs> xam nga lii caaxaan dëgg-dëgg la mel ni diine l'islam moom daa am loo xam ne yàlla na ko wàcce ci diine l'islam spécial pour loo xam ni benn ay benn xeet kese la yenn xeet yi bokkuñ ci te mu te mu nekk ci l'islam subhanallah te yàlla ne udxulu fi silmi kaafa l'islam lépp ngay jël yow nga gëm ni ko l'islam am na ci lenn loo xam ne pour benn askan kese moo la concerné benn façon jaamu yàlla boo xam ne pour benn askan la concerné fan la ko yàlla wax haatu burhanakum in kuntum sadiqin indi sa preuve fan la ko yàlla wax fan la yàlla wax ne jaamu yàlla sàngam pour askan sàngam kese la kon waxi woo alxuraanu karim yéen wax dëgg yàlla da ngeen juyoog alxuraanu pare di jéem a laqatoo alxuraanu karim fekk sori ngeen alxuraanu karim lool aj nag lottu ngeen ndax dèjà boo demee arafa xamoo lu ñuy def arafa mënoon koo wax te yàlla tudd na ni dañu war a def araf bu ñu ajee tawaaf munoo wax ñaata la ñuy tawaaf xamu leen ko ñaata la ñuy def sa marwa xamu leen ko alhadiyu wal xalaa'id kam ma ko war a jëfandikoo xamu leen ko dafa bëri yoo xam ni ay gàllankoor la yàlla mu ne bu ñu mas mas'alil haram yàlla mu ne da ngeen fa tudd yàlla comme ni ma leen ko jàngalee fan la ko yàlla jàngal alxuraan karim mu ne ko génnee moo tax foo da ngeen ko jëlee taf arab pour arab yi la ngeen ngeen mën cee dégager responsabilité ndax mënoon ko layal comme Mbacke Sakho bu expliqué ci aj waxul lu ñu ajee de dafa ne gars yi naan dugal aaya yi ngeen xoolal seen bopp te bu muy jàngale julli dafa jël aaya di démontrer moom di wane ni ñu jullee waaye bu lay yee ba ci aj dafa ne gars yi naan dugal aaya yi ngeen xoolal seen bopp nga xam ne lot na ci jàngal lu ñu ajee bu mu ñëwee ci aj kon yéen wax dëgg yàlla ay caaxaan kese ngeen téye waxoo wala xam-xam li ngeen wax dara du ci xam-xam. ñaareel ba tamit alxuraan ñu bëri dañ cee amul ràññee. naasu fu yàlla waxee waxul àdduna bi yépp déedéet déedéet man tey bu ma doon wax euh, fi ma toog toog ak nit ñi ne leen yéen nit ñi ça veut pas dire yéen àdduna bi yëpp la yàlla wax déedéet waaw loolu tamit moo jaxase def amalgame ci bopp nit ñi ba mënuñoo ràññee la yàlla wax euh, ñam doon waxal di araab yi ak la mu wax àdduna bi waaw kon su ko defee yàlla waxul benn yoon ne aj gi dama def ci ad pour àdduna bi yëpp waaw kon wa advin fi naasi naasi googu ñu dëkkoo nag Ibrahim la waaw yëgal ko nit ñi tey tey ñooñu ñoo nekk giiru arab yi tey voilà ba mu tabaxee Kaaba ga ba pare ñoom la mooy seen xibla donc mooy seen cosaan mooy seen mooy seen taarix mooy seen lépp waaw moo moo tax lépp luñ fay def rek ci seen seen seen cosaan la waaw daw safaak marwa ba seen cosaan la jëm ci arafa ba seen cosaan la manam li temu bopam la go xamne yàlla da ko def ci alquran waaw léegi man ngeen ko jël bëgg ko duggal dëkk ko def ko parce que li dafa dafa am fu mu jugee wa bo xolé ci ci dawla umawiya ñom ñoo def l'islam des cinq piliers ñom ñoo ni buniyal islam ala khams voilà lolu islam arab yi la la yàlla moy buniyal islam ala khams mais l'islam mësta doon benn l'islam waaw manam bu ma ko waxee noonu lislaam ca yàlla mooy nga xam ne moom kenn la loo mën a def naar yi dañ daan aj te pourtant génnoon nañ ci ne lislaamu yàlla dañ daan aj ci lislaamu yàlla aj gi moo fi jiitu yenentu bi aj gi yenentu bi indiwu ko fi fi ko fekk waaw ñu jël kaaba gi def ci ay xërëm di na inna iddata shuhur googu ca jamono Ibrahim lan leen ko waxee loolu bokkul ci yàlla jox ci àdduna bi yëpp waaw inna iddata shuhur inda la isna achara shahra fi kitaabillah loolu loolu mbirum arab la yàlla expliqué na la ko ci suratu taw waaw te it looloo yàlla ne euh, maanaam euh, euh, alhajju ashuru mahlumaat yooyu ñoom la ko jox looloo taxit boo demee ci alxuraan da gis ne maanaam alxuraan boo gisee nit ñu bari comprendre nañ ko ndeysaan jullit ñu bari duma leen ko jàppe nag ndax ni ñu leen ko jàngalee la waaw parce que dañuy jël yàlla dafa am nu mu waxee ci alxuraan waaw dégg arab taxul nga dégg alxuraan alxuraan yàlla def ko wàccee bi lisaanin arabiyyin mubiin loolu bokkut ak lisaanul arab lisaanul arab ak bi mu arabiyyin mubiin alxuraan dafa am waxinu boppam ba tax na benn mu lay jël wutal ko maanaa yu bari boo xamul maanaa yooyu yëpp nag ni taxawee ci alxuraan da teg na benn moo boobu rek la jël ni ngeen ko xamee ni ngeen ko déggee rek bëgg ko fu ko yàlla waxe ngeen firee ko noonu loolu du ngeen jub ci nju njuumte waaw du ngeen ci njuumte boo xoolee alxuraan bi yëpp lool la boo jëlee baatu buyut yàlla dana ko tudde jàkka dana ko tudde kër yi dëkke dana ko tudde dañ ko tuddee boutique yi waaw yooyu yëpp ngi ci alquran waaw bu buyutin azina allahu an turfa dama koy bañ a tudd ak maanaam fa am kuhun na fil buyut xata yatawafaahun loolu prison yi la waaw ak laysa alaykum junahun an tadxulu buyutan gayra maskunatin fiha mataahun lakum waaw loolu mooy commerce yi ñuy def magasin yi voilà donc ak yàlla fi mu koy waxee tuddee ko manam keur yi nu dëkke waaw kon buyutan tastaxifuunaha yawma zanikum wa yawma iqamatikum moy foy fooy ba ta fi ngay nelawe waaw yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman ñi ñi fanaane gudde kon moy bërëb bi ngay nelawe donc kon yoy yep nit ki foog mu xam ko bala muy firi alquran sino bu ko bu ko defu rek day nekk ci problème lolou nak mo dal julit ni wala mo dal julit ni wala ba tak amal gambe alquran leeru sen bop moo dal arab yi ñu bind ci ay téere jàngal ñu ko te noonu du du noonu demewul noonu waaw fi mu toll damaa xaw a jàpp sax mais at gi moom boo bëggee xam li ci def demal suratul bàqara yàlla am na lu mu la wax nga dem ci suratu ali am na lu la ca wax nga dem ci euh, suratu bi ko tuddee suratul xajj am na lu la ci wax nga dem ci euh, suratu maida bi ci mujj am na lu mu la ca wax danga xam ne lool yoonu adduna bi nekku mbirum arab la voilà yoonu adduna bi nekku ci man maa la ko wax waaw alxuraan dama koy gëstu chaque mot dama koy topp di def te dabbur topp ay téere rek di dem voilà donc topp téere yi moom ku ko topp discours bi ngay wax rek la ñëpp di wax waaw mais ñi yàlla dimbali ba nu xàmme mbir mi xam nañ ko du farata bu yàlla gàddu gàddu àll bi yëpp waaw léegi nag kum neex nga dugal ci sa bopp loolu dara nekku ci waaw loolu moom dara nekku ci waaw boo ko defee ni ko yàlla santaale rek mu fay la ci waaw ndax moom moo ko digle nag mais digalu ko àdduna bi yëpp dafa am ñu ko digal te arab yi la kooku moom defe naa ne ñi xam alxuraan duñ ci werante léegi kon su ko defee mbir maa ngoogu waaw gëstu alxuraan dolliwaat gëstu alxuraan bu baax te xam ne alxuraan fu mu nee naasu rek bul teg ne àdduna bi yëpp la ci la ci la ci jublu waaw waaw àdduna bi yëpp moom jublu ko ci waaw kon su ko defee euh, baat la boo xam ne léeg-léeg yàlla dana ko utiliser nag jublu ci àdduna bi yëpp léeg-léeg yàlla utiliser ko te jublu ci maanaam arab yi rek léeg-léeg mu utiliser ko te jublu ci yeneen i nit kase waaw léeg-léeg mu utiliser ko jublu ci waa Madina kase léeg-léeg waa Màkka kase waaw loolu lépp nag nit ki da koy xam waaw doo jël baatu naasu rek daal di koy dëkk ne àdduna bi yëpp la yàlla di waxal dafa mel ne baatu kaafa rek waaw wa qaatilu maanaam wa ma arsalna illa kaafatan li naas ñu ne waaw yenentu bi àdduna euh, bi yëpp la ko yàlla yónni dëgg la ci benn côté ci benn côté mais mooy côté tawxiid bi moom àdduna bi yëpp la ko yàlla indi ñu yàlla yóbbante ndax comme moom mooy tëj nubuwa waaw kon yeneen yi lim fi lim lim lim fi ñëwee woon mooy jottali laa ilaha illa allah wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fabudu ak maanaam ni ko yàlla waxee wala xad bahasna fi kulli ummati rasul an yabudu allah wa in min ummatin illa xala fiha nadir waaw kon su ko defee loolu lépp yàlla wax na ko kay kon su ko defee te ñoom ñëpp nag baatub laa ilaha illa allah waaw qul innama yuuxa ilaya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun waaw kon avant mu koy wax dafa ne ko wa ma arsalnak illa kafatan linnaasi bashiran wa naziran walakin non non dafa ne ko wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin waaw daal di koy qul innama yuuxa ilaya rahmatan lil alamin jooju voilà mooy la ilaha illallah bi nga xam ne da koy jottali àdduna bi yëpp moo tax la ci yàlla teg mooy qul innama yuuxa ilay annama ilahukum ilahu wahid looloy la ilaha illallah fa hal antum muslim kon ku ko accepté rek doon nga jullit voilà loolu mooy yón yón yónne bi nga xam ne nag yàlla da koo def mu jox ko àdduna bi yëpp nag waaw mais kanta nag aj gi moom non aj gi moom yàlla joxu ko àdduna bi yëpp waaw kooku moom arab yi léegi nag ku mu neex na nga jël ko Euh, di ko jëfee da nga ci am tiyaaba mais forcé wu ko ndax yàlla yàlla du du du la teg loo xam ne danaan la soo ko mënul rek bàyyi déedéet da ngay xool ponk lislaam yëpp amul bu la ci yàlla di wax rek ah naan la soo ko mënul bàyyi déedéet loolu amul waaw boo xoolee julli ki par exemple man waxuma ne loolu leneen la dinaa ko indi waaw dama la indil ponk yi rek waaw julli gi ci boppam yàlla dafa ni euh, fa in xiftu fa rijaalan aw rukbaanan waaw boo mënta julli taxaw nii euh, comme kama allamakum fa iza amintum fazkurullah kama allamakum ma lam takunu taalamun bu fekkee yaa nekk ci jamono sécurité ni ngay taxawee di julli rukun yàlla nee na boo ko munul na ko na ko defee di dox wala ngay war am na foo xam ne sax boo ko mënul yàlla ne euh, na ko def xiyaaman wa quhuudan wa ala bi da nga tëdd di julli da jonkan di julli da taxaw di julli ça dépend ci ni ko mënee rek loolu lépp yàlla wax na ko ci alquran waaw mais mosu la ne boo ko mënul bàyyi waaw koor gi tamit soo ko mënul yàlla dane dane képp koo xam ne koor gi dafa diis ci yow ah, na nga na nga leel miskin ndax dafa bëgg nga xiif xam lu ñuy leele miskin comme nag fa la doon yóbbu yow mënoo ko mu ne la kon fa mu bëggoon la egg fa egg fa rek mooy joxeel nit ki lu lekk moo tax yàlla ne wa alal lazina yutiquunahu fidyatu taamu miskin waaw wante nag fa man taw tatawaa xayran fa huwa xayrun la dalaa sartal lay dundal miskin bis bu ne mais nee boo ëpp boo ci mënee def lu ko ëppit moo gën waaw kon yàlla dafa am lu tax mu digal waaw kon nga ñëw ci azaka bi waaw donc azaka ni ko julli ni déggee du noonu waaw moo tax yàlla détaillé ko ci at moom ak julli la waaw loolu loolu du loo xam ne boroom xam-xam yi ñoo fi toog naan boo génnee lii génn boo génnee lii julli gi no nangami rakka la loolu danoo comprendre alxuraan waaw loolu nag seeni ko tëral mën nañ cee tëra mais buñ ci tënk àdduna bi yëpp ndax azaka ak julli ni ko yàlla defee daf ko flexible ndax xeet bu ne ak na ngay julle comme nee ne kullun kullu kullun qad alima salaatuhu wa tasbiya ñun ñëpp xam na ni ni julle ku ne xam nga sa julli même picci yeeg njanaaw yeeg yëpp ku ne da nga xam ni ngay julle ak làkk bi la ko yàlla jàngale ak nang koy defé waaw julli géet non la mel bu dul yaakaar ne ku julli wul ni arab yi di julle rek amoo julli loolu erreur bu reuy la waaw loolu tamit erreur bu reuy la ku julli wul ni arab yi di julle rek amoo julli waaw ah, boo làkkoon arab rek dinaa sami allahu min alhamida rabbana walaka alhamdu subhaana rabbiyal ala subhaana rabbiyal azim yooyu yëpp mën nga koo wax ci làkk bi nga bi nga xam ko wala boobu boo demee bay àbbu làkku araab bi di ko ci waxit nga xam la ngay wax mënoo jaamu yàlla ci loo xamu moo tax yàlla jëlul àddu yëpp tënk leen ci làkku arab loolu la nit ñi kay kon xam naa ndax dama jàpp ni damaa yor sama kurus voilà te dama war a eggali sama mushaf bi donc daanaka détail yàgg naa ko wax voilà du tey rek laa ko wax yàgg naa ko wax du tey rek la nit tamit jóge fee bëgg ma tegal ay ay ay dalaa il yoo xam ne dafa am wàllu wu koy wàllu wu koy doxe waaw yéen kay li may wax rek waaw bu ngeen tënkoo ci diine arab daal tënku leen ci te may nit ñi jàmm voilà donc loolu moom baax na waaw te li yàlla yaatal ngeen bañ koo xatal loolu dana baax lool voilà li yàlla yaatal nga ngeen bañ koo xatal voilà lislaam du rek l'islam de cinq piliers yi leen arab yi tënk waaw du loolu rek la ndax dañ koo tënk jox leen ko ñoom it ñu tënk ko jox leen ko waaw te yéen bokku leen ci waaw kon su ko defee euh, mbir mi daal yomb na waaw moom leen gëmee ak yeeg yeneen ak yeneen def leen ko rek te may nit ñi jàmm waaw Sénégal comprendre nañ ko baax kilifa diine doo fa gis sax ñuy dem ay aj waaw kilifa diine yi doo ku ci dem aji dara nekku ci dara nekku ci waaw dara nekku ci waaw buñ ko defee dara nekku ci mais ñi xam dëgg-dëgg de duñu duñu duñ jàppe ne ci ponk goo xam boo ko deful boo demee yàlla duma la waaw yàlla amul lu muy digle nit ki rek naan boo ko munul bàyyi noonu déedéet lu ci ne da ko wutal da ko wutal alternative aj ji kon yàlla wutalu ko sax alternative waaw nee na boo ko mënul rek bàyyi ndaxte ndaxte dafa am lu tax waaw donc dafa am lu tax donc arab yi la ko jox pour ñu li lim ci wax lépp li tax lépp wax na ko leen cay reye giléem yaag lekk ga yàlla soxlawul yàpp soraxul deret lan yanaal allah luhumuha wala dimaahuha waaw kon lim soxla ci ñoom ñu xam ne yàlla moo len bind ñoom arab yi am fu mu leen jële yónni ci ñoom benn yenentu arab yi dañu incivilisé woon dugg woon ci ñu àdduna perse yi nekk fi am seen empire romain yi nekk fi am seen empire donc arab yi doon ay kaw-kaw yenentu yàlla yónni yenentu bi ci ñoom voilà donc bi mu yónnee ci ñoom mu mu mu dimbali leen voilà ba boole leen ci nit ñi voilà ñoo xam ne seen ndey lañ daan sëyal euh, di wa isal ma uddatu su ilat bi ay zan bin xutilat jàppante jaam voilà euh, donc ak ak ni ko yàlla waxee خرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم لا لن دندف كن كلا جنني كلا لو فعلى هو الذي بحث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كان من قبل في ضلال مبين كوكو كون دا نلوتال بيس بو خامني تنكوي فاتليكو لولو موي اجي جيخنا لولو كاسلا voilà loolu kaasa la waaw ñi ko xamul nag mën nañ teel teel di ray seen bopp bokkul ci li li yàlla teg ci àdduna bi ne nan ma ko jaamu àdduna bi yëpp ku ca dem dugal sa bopp nag yaa ca dugal sa bopp waaw kay jërë ngeen jëf dama amul jot nag am na ñoo xam ne moom dama leen dul sax tontu maa ngi gis ñuy enregistré xaw ma ku ñuy waxal mais man bopp ma seen message sa du ma ko wala moo ko dégloo du ko tontu waaw kay kon jërë ngeen jëf yal nañu yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa bi yow xam naa yow wax dëgg yàlla. yow yow yow yow sëñ bi da ngaa dem nga gëstu jiwaat ngir yàlla yow li nga xamoo ci dara li ñu laaj tontoo ci dara dara dara. ay xalaat nga indi ay nangam ay nangam ay nangam di wax ay wax ràbb say xelam bopp dama la laaj ni indil ma ben aya alquran bi yalla waxe aya alquran bi ci ngay ci ngay référence woo ni aj pour arab yi la yo ni ngay wax ay yaay ràbb sa xatu bop de wax indi ben aya bu ko yalla wax ben aya bu la yalla wax ni aj du pour jullit yëpp lu la soxla li ngay wax interprétation la yalla dafa yoni yoon ci muhammad ni ko ma arsalnaka illa kaafatan linnaas nit ñepp kenn desul mu ne ko xul yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jami'an waxal li eh yéen nit ñi man de ndawal yàlla laa ci yéen jami'an kenn desul da koo feddali kenn desul mooy képp kuy doomu aadama rek ci mission yoon dama ma nga bokk. kon yàlla bi ñu koy jox xaj dafa ni walillahi ala naasi kon lépp lu yàlla di farataal di ko teg ci kaw jaamam yi ci ci mission yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla farataalee képp ku bokk mission bi ca nga bokk. waaye amul lenn lu yàlla wax di farataal ci kaw xeeti yoon ci yàlla Muhammad am benn askan da bu mu ko jagal amul fan la ko yàlla wax fan la ko yàlla wax kon yàlla moo woo ñu yoon ci yàlla Muhammad walillahi ala nnaasi hajjul ba hajjul bayt man ista ilay sabil yàlla dafa warlul ci doomu aadama warlul boobu mooy farata bi yàlla warloo ci kaw doomu aadama yi la aj nekkee farata kon yàlla lépp lu warlu ci doomu aadama yi rek doomu aadama yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne ñoom la yónni yoon ci yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ndax yoon bi la ko wax kon yàlla yónni yónni ma ci nit ñi ba pare ni aj maa ngi ko warlu ci arab yi kese fan la ko yàlla wax nga ne yàlla wa man kafara boobu gisoo fenn fu yàlla julli man kafara ak woor ak nangam fekk ni yow wax dëgg yàlla li moo wax ni amoo xam-xam li waral loolu mooy julli dafa doon loo xam ni nga ñàkk nga wér nga feebar nga am da koy def koor da koy def nga ñàkk nga am da ngay woor mais aj mooy loo xam ni moom benn condition la mooy nga am moyen ji mo tax da gis julit boo xam dum na ba génn do aji ndax amul moyen bi kon nak nit man na am moyen ñak aj ko kooku la yàlla wax ni ki nga xam ne am na moyen ñàkk aj te te yàlla tek nako ci kaw kep ko xam ne am na moyen yàlla wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin kep ko xam ne am na moyen pare lànk baña aji koku dafa weddi fonk aj bobu le kon fa inna allaha ganiyun yàlla ko doylu la lan moy doylu bu yakane am am bobu nga am wala dem aji ji yàlla dafa am lu muy yok suñu borom yàlla ko doylu la soxlawu ci dara kon bo ne lii bokkul li nangam wax deugal yàlla bi yalla waxu ci julli waxu ci koor julli mom nga ñak ak nga am dagay julli koor nga ñak nga am dagay julli dagay dagay dagay wor way aj moy lo xamni dafa am lu mu la ponk la aj ponk farata bo xamni dafa am lu mu xasu moy ponk la bo xamni nit meuna gënu ba ko def ndax meuna ñak moy bobu la waaye nag yalla di xamal ko xamni am nga moy bi nga lank tok bañ ko def yalla nak koku ak wedd yalla de yàlla ko doyul la wax deug yalla sëñ bi yow mom yalla xam doyna xool li ma laaj ak sa ak sa audio yi ak sa audio yi may la damay la indil ma fenn fu yàlla waxee ni nit mën naa ñàkk julli dugg aljanna nga yow di wax ay julli boo feebaree da ngay dañuy boo nangam yow daa nga sa bopp ndax ne yow nee nga julli moom faw nit ki da koy def mënu ko ñàkk def yow at yow atte nga sa bopp di yow yaa waxoon ni nit dèjà nit man ñàkk julli mënta mën ma mënta dugal li safara tey may ma yow laaj la fan la ko yàlla wax si alxuraanu karim indiw alxuraan karim nga wax ba dugal sa bopp yow nga ne julli moom mooy loo xam ni moom mu nga tiit da ngay julli façon bi nga mën nga feebar nga ñàkk nga tëdd nga nanga nga jonkoon loo mën a génne nga julli mooy loo xam moom nit ki du ko mas a bàyyi kon dèjà nit ki a ko ci kawam koo yow sar sa boo feebaroon même boo lottoon même boo gaañoon même euh, dressé woon même da ngay julli waaw kooku boo ko teggee nag kon luy atteen dèjà yow da nga wax ba dugal sa bopp mooy waxe woo xam-xam tontul question yi la laaj mënoo ko tontu gars yi nag nee nañ ma yow moom tontu question ban aaya la yàlla wax ni nit ban naa ñàkk a julli dugg aljanna yàlla da wax na ne ña nga xam ne dugg nañ safara ëllëg dañ leen laaj leen a dugg safara ñu ne daawuñ julli yàlla wax na ko léegi nag ñoom na mi ngi ay alxuraan la léegi yow nga weddi boobu nga gëm loo xam ni néew si alxaanu ko alxaanu ko mooy ban aaya la wax ni naa ñàkk julli dugg aljanna loolu lañ soxla soxla nga ay julli nga tëddee ko ndeyjoor ak côté càmmoñ laaj na loolu wax dëgg yàlla euh, sëñ bi yéen euh, wax dëgg yàlla ñu jërë yërëm ngeen ñu jërë yiram ngeen wax dëgg yàlla da ngeen da ngeen da ngeen amul xam-xam bëgg a wax ci diine li nga fa li nga fa waxee sa ràbb xel la ay yéen ahmad yàlla yónni ko ci ni ñëpp xaa xaali ko yàlla yónni ci ni ñëpp kaafatan bi mooy tawhid fan la yàlla wax ni wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi nekkul mission bi yëpp lenn tawhid dong la man ban ay la ko yàlla wax yow da ngay wax wax yoo xam ne yow alxuraan nag ngeen référence te léegi wax doo ko génne sa alxuraan karim fan la yàlla wax ne wa maa arsalnaaka illaa kaafatan naasi nekkul julleeg woor a yooyu kon tawhid gese la ba fan ban aaya la ko yàlla wax ban aaya la ko yàlla wax yow wax dëgg yàlla man sa sida waa ji dama yaakaar waay est-ce que est-ce que ça va waaw kay jërëjëf Abdoulaye Diop dama ne woon du ma dugg sax ndax wante dama xam ne ndeysaan Euh, nit de dafa war a yërëm boppam yërëmul boppam bi yërëmaate Abdoulaye Diop yaa war a yërëm sa bopp de waaw yow li wax euh, comprendre ko de waaw ndax da topp ay téere ndax xel mi la yàlla jox jox ma ko wàccee wax ji am fu ko tàmbalee doon wax ak ñoom dugal ci waxaale ak àdduna bi wax ak ñooñee te yow xàmmeewoo la ca yàlla wax ak ñooñee ak lam ca wax ak àdduna bi mboolem aaya yi ngay indi yéen dangeen ngeen koo comprendre wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa naziran la ci yàlla teg waaw yàlla bi mu yónnee yenentu bi ci ci ci nit ñëpp ci nit ñëpp lu ci teg ndax dem leen nga jox leen julli dem leen nga jox leen woor dem nga joxe aj gi déedéet dafa ne ko bashiran da ngay bégalaate wa naziran da ngay xuppaate bashiran mooy la mooy nga bégal nit ñi ne leen kaddu la ilaha illallah bi ma indi ku ko gëm yaa ngi ci diine yàlla bo ca defé lu baax da ngay dee dugg àjjana ku ko weddi yaa nga ca euh, diine seytaane wala boog euh, nekko ci li yàlla bëgg boo deewee da ngay dem sawar li li de moy moy moy ay bi nga wax lolu nak aduna bi yëpp motax yalla fofu foofu dugal fi kafatan linnas waaw